jërë ngeen jëf yéen sunu mbokk not yu 221 people ñoo ngi leen di nuyu di leen di siyaar bu baax di ci delluwaat rek kenn ku nekk euh, sa wàccuwaay comme ni ma koy defee saa su nekk fa yéene di dalal kilifa yi nga xam ne seeni boroom am na lum leen dënk ma bëgg di taataan ñuy waxtaan ngir ñi nga xam ne saa bu ñu toppe rek mën a jëriñu te nag ñu doxandu ba ci dëkk bu tedd bi mu di Touba Mbacké comme ni ma koy def saa su nekk fas yéene dalal sëriñ Modou njaay mu sëñ Saliou ñu waxtaan ci xam-xam ku ko xam rek xam nga ko ci xam-xam waaye xam ko ci révélation yu am solo tàng jër yi nga xam ne mu ngi koy def te noonu la koy defee te ndax am na loo xam ne gis na ko ci célébrité yi waaye am na loo xam ne gis na ko ci politique bi ndax ni mu ko doon waxee saa su nekk lu mu ci waxoon rek ci politique teg nañ ci bët waaye dinañ waxtaanaat ci combat bi dox ci Siteu Modou Lo tey nag xam naa ku déglu rek di nga dégg xam-xam gannaaw bi màggal bi jàlle ci jaam ak salaam di ñaan képp koo xam ne ñaan nga ci rek suñu borom fulal la koy gën a defal la ci tawféex aja sëñ Modou damay bàyyi nga ne nuyoog mbokk askan bi bismillah waaw salaamaaleykum wa rahmatulah Cheikh xanaa ñu ngi lay nuyu yow tamit di la fay nuyu mm-hmm. di nuyu mbooleem waa réew mi ñi nga xam ne ñu ngi ci site bi di 221 people mm-hmm. di nuyu waa réew mi ak waa bitim réew. Mm-hmm. ñi nga xam ne ñu ngi ñuy bàyyi xel dina topp ci lu am solo. Mm-hmm. Mm-hmm. muy xam-xamu azar. waaw ak ñaan yàlla. li nga xam ne ñu ngi ci nekk ak paj waaw di ci dimbale doomi aadama yi. di ko fii ci 221 people. mboolem ñi ñu ci topp dinu ci siifar ak ñi ñu ci bàyyi xel ñoo ngi leen di siyaar baax di leen jox seen wàccuwaay. di ñaan suñu kàddu fekk leen ci jàmm. tarkal jërëjëf jërëjëf sëñ Modou Atia. kon niñ ko defee saa su nekk mën naa ne xanaa koo mosut a seetal waaye képp koo seetal dina woo keneen boole la ak moom ndax sa seet bi dafa yéeme dafa yéeme lool lool lool lool lool li nga yor ci seet nag bëri na waaye sa seet ramle bi mu ngi tukkal àddina bi ndax seet bu am solo la del sil ba ci seet boobu nga xam ne yaa def seet doomu aadama moom àdduna mm-hmm. booy dox rek waaw war ngaa mën di bàyyi xel sa mbir sa toogaay seet nag lim mën a décanté dafa bari. waaw ko wax lim mën a lijjanti dafa bari ci wàllu doomu aadama gi. waaw ndax mën ngay ne ci mbir di talxalaxi. waaw di am ay gàllankoor doo xam li ko waral. Mm-hmm. wala nga am ci jafe-jafe wala dugg muy yàqu wala noom lépp problème boo mën am rek. waaw boo jógee da ngay jàll ci la ci des. loolu rek ñàkk a xool sa bopp ko waaye seet. waaw li mag ñi daan def seex. waaw ci wàllu ñaan ak lasaraar ak seet ba tey mi ngi fi. Mm-hmm. amut benn doomu aadama bu ko fi mën a jëlee. la ko waxal li ciy dox kay mooy gis ci ku ci xam dara ak ku ci xamut dara. Mm-hmm. waaye nag lu waay di mbubboo leen rek da ko war a nuroo waaye seet moom ramla bi nga xam ne yonent yàlla Idrissa waaw moo ko njëkk def mhm. sëñ mut njaayum sëñ Saliou ci lay dox waaw waaye lépp lu mu la ci wax bu ne la ca tuuba ngay faatu bee nga fay ko bor tarkalla lu mu la ci wax da nga teg sa bët mhm. waaye nag man samak seet sa situation adduna da la koy wax waaw waaye li doy waar ci samak seet mooy sarax yi ma lay wax mën ngaa fay ay millions doo gis ku la ko leeral barki ah alxuraan mën ngaa dem fay man ma seetal la wax la say sarax sa situation décanté wu seet gu leer gi sarax yi faj aajo yi hmm. sëñ mun njaayum sëñ saaliw ngay woo seet lu ma la ci wax ci ramlu bi ba nga faye ko bor wax samay sarax loo ci def hmm. saa borom la ci wan nga teg sa bët waaw amul ma dem te ñëw hmm. dama ko mënantuut seex seet dama ko man loolu la yàlla dogal réew mi ñu nekk gisuma ci ku ma laa seet lu wér su ma neexee dafa leer sama baat ci kaw ndax musuma seetal lu ma gisoo ma maa la wax de li naa ko ba li nga jotee xam naa ko maîtriser naa ko waaye ramlu mhm. bi lay wax li nga dund ba romb ko yow waaw wax la ci fi nga mhm. wax la ci li sa karam te lay décante situation ba bu la wax mhm. wax la sarax ba sëñ mun njaayo ngay woo mu leeral ko ci kattanu yàlla waaye nag doomu aadama bu ne am na sarax am na bis am na biddiw am na burju am na kawaakib waaw dama lay wax sa seetu ramlu bi ba pare seetal la ci xel mënu joom wax la sa sarax wax la bis ba nga xam ne boo ko xamee wala neexee boo ko defee at mi wala neexee yow ab sëriñ dootoo dootoo tiim sëriñ naan ko ah, sama aju ji naan ko wax de loolu na ku ko bëgg hmm. sëñ mun njaay nga woo mu lijjanti situation bi dafa leer nu yàlla hmm. njaay ngay jërëjëf incha mu ngi noonu euh, yaa xam nga nekk ci biir réew mi nga nekk euh, bitim réew numéro bi saa su nekk dañ koy affiché ba mu leer naañ feneen foo ko jëlee rek dóor nga solo loxo ci ëkk numéro bu baax bi mu nga doon affiché ci 221 people nga woo ko mu jokkoo ak yow jëflanteeg yow ba sa xool sedd guy acca sëñ Modou ko bëgg am xaalis bu gaaw to ànd ak benn sacrifice. xam nga léegi dafay bari ñoo xam ne dañ naan la. waaw dama bëgg xaalis ñi naan la dañu wàcce xaalis di leen nax. waaw ñi naan ay lii ngeen di jël. nii ngeen di def ak sarax bi. nangam sangam yooyu yëpp ay caaxaan la. yow boo manee woon it boo mënee woon naan ko boo ma joxee 10 millions ma defal la ko 20 millions. Mhm. doo ko defal sa bopp te toog taayee woote. lu wér. yàlla. maa la ko wax de. sunu borom lu mënut amut. wallaay mm. ndeysaan. sàkk na sunu borom sàkk na dëkk bu ne nag. waaye dëkk bu mu sàkk daa fa jëm. lu wér boo jëloon yor daaru jolof bëgg dem Dakar doo àgg. <laughs> da ngay bala nga caa xam nga mën caa am dara. da mm. xam yoon nga mën a jaar ba jariñu ca. lu wér. ñaan ne. man naa faj ku feebar. man mhm. naa faj ku wéradi wéradi xel. mën naa faj ko ñàkk. Mhm. liy waral faj ko ñàkk. ki consulté nit ki xam li dëgëral ay mbiram nga wax ko ci wàllu sarax. wala ndeysaan. seex ay am xaalis am bari lépp daa am lu ko gën. Mhm. ubbiku mooy lépp. lu wér nga wax. doomu aadama bi. li di gën a doon priorité am fexe bay ubbiku. moo gën ci moom. ndax ubbiku boo ko defee loo daan sol saw dàll. dem di ko uti. mu dëgër la boo boo boo mën ngaa toog mu yomb la. wala ndeysaan. moo tax ma ne la seex. waaw xaalis. dangay fexe ba sa yaram neex. Mhm. xaalis mooy liggéey xaalis. lu wér nga wax. ñaan yàlla alquran. Mhm. ak garab yi mën na lu ne. waaw am nañ ci ay yoon yu ñu liggéey yoo xam ne. Mhm. doo ànd ak benn sacrifice. sa situation lañ lay décanté wax la loo xam ne day ubbi sa mbir ba bi nga xam ne moom nga bëgg. waaw li doxal say mbir. moo lay indil xaalis. mais naan boo ma joxee li ma defal la nii déedéet waaye tamit nit naan la kaay ma jox la loo xam ne da ngay am xaalis. waaw wala boo ko def da am xaalis. ki la ko jox xool ko ba xam moom wax waaw li ngay defal nit ki ngir mu am xaalis mhm. defal ko sa bopp am xaalis ba pare mhm. doo ko woon nit ñi waaw waaye seex sëñ mun njaay lépp loo xamante ne bi ndi koy bëgg ci wàllu ubbiku waaw ngir am alal waaw boo ma woowe ma ko siltal xam ne gàllankoor say mbir yow mhm. buñ ci jëflante yow léegi tey nga doon millionnaire boo doonee millionnaire sa alal da yokk seex xanaa xamu am na loo xam ne boo ko yoree loo yor mu toog day fekkante loolu moo da ngay jëfandiku nag a mhm. xam yoon ya nga mën a jaar kii fi muy jaar ba mbiram dox ak kii fi muy jaar ba am alal mhm. lépp ci nooraani yu am na sulmaani yu nag dafa am nooraani yu am sulmaani yu mooy yu gaaw ay neex yàlla naqar yàlla ñun nag ci nooraani yu la ñuy liggéey waaye lépp luñ la ci wax rek am na yoon wuñ ci xam ci kàttanu yàlla waaye ubbiku waaw am alal wërsëg ci wula lew ci lu mhm. gaaw buñ la consulter rek teg ci rek la ci yoonoo ci kàttanu yàlla. tarkal incha allah jërëjëf jërëjëf sëñ Modou am na solo. aja ñu des ba léegi wéyal jàll ci beneen ponk nan nañ mën a def ba mucc ci corte ndax corte maa ngi dégg ñu bëri ñu mu ngi faagagal ñu bëri fi mu ne nii fi mu ne nii sax mu ngi rey ñenn ñi. waaw corte seex la mën a def ba mucc ci mooy fexe ba am kaaraange. waaw ndax corte. waaw bu sa bopp oyofee mën nañ ko sànni sax mu mooy dal la. cey corte mën naa dal kii. waaw te fekk moom tax ko woon a jóg. dañ koy sànni kooku mu am gàllaaj wala nga sànni kooko ngeen nekk nga oyof bopp mu jëm si ci yow mhm. wala ñu koy sànni moom mooy dal la moo tax fi ne li gën a doon erreur ci àdduna ci jamono ju ñu toll nii mooy ñàkk galaaj ndaw lu ñàkk galaaj wala ci dara lu assuré lu wér nga wax ci caas lay dox waaw ndax xam nga li xew daa bari mhm. nit dana la réel te bëggu la nit di ànd yow guddi ak bëccëg di bëgg di gas say tànk lu wér nga wax moo tax walaay ndaw loo xamante ni bëgg ngaa mhm. nga ciy jóg lu wér nga wax kàttan waaw waaye lu loolu rek li jënte sa mbir waaw loolu duggoo def sa yaakaar da nga am gàllankoor mhm. man say mbir mën na yoo xam yàgg nga jékki ci ñu la yëkkatee ko tëral walaay ndeysaan wala xam ne duñ bëgg nga tekk dara dañ lay mhm. sa bopp ñu a day bëgg dara faw nga am kaaraange fexe ba mucc tey mos boo ko defee mën ngaa mucc yu bari seex am na am na ndomb yoo xam ne boo ko yoree musiba sax bu doon am da nga wuute yàlla ngaa toog ci fenn bu fa musiba naree am yow da ngay jóg ba dem loola doo sax lu wér ci xam-xam moo tax seex waaw lépp waaye mën a wax mm-hmm. ndaw lu bëgg dara di dox te amoo kaaraange mm-hmm. sa dara dëgërawut lu wér nga wax ñun nag kaaraange liñ ci liggéey bari ndomba gu ñuul gi. ki ñuy ay béy bu ñuul jaar fi jàll. yeneen ak yeneen yeneen yëpp a fi. waaye santé pàcc ba nga bëgg rek. waaw liggéey loo xam ne ci wàllu kaaraange loo xam ne buñ la ko waxee defal. bu la neexee lu waaye wax nga dugg ca. ndax seex ki koy man ak ki koy jéem. Mm-hmm, mm-hmm. danoo bokkut. nit ki li da ko war a xam. macha dugal dara làmbatu. Mm-hmm. loo xam ne man seex bu ma liggéeyee leen ndomba kaaraange bu ma neexee bala ma la ko jox danaa xam ba xam ngi mars wala marsut te man bu ma liggéeyee ba mu yegg ma war laa jox li nga xam dina danaa xam ba xam li ma lay jox ba xam mi ngi dox mi ngi fonctionné wala fonctionné bari nañu takk ay ndomba ay këyit doo nga takk dem tekki fi mu toll nii foo waxee ñu fëgg seen dënn naan naan man mënoo ci man dara nangam ñu takk ba ne jàgg ay ay ay ay der ay këyit takk day na waar a xam du lu ñuy bëgg boo ma woy ma réglé la macha allah ci kàttanu yàlla mu ngi gis naa ñu ngi lay woo baat léegi waaye nag nañ muñ rek may ñu ñu àggale émission bi xam naa lépp dañ koy siif ci waxtu ci ñuy woote acca euh, nawtal ñu bëri ñu ngi may jàmbat seen dañoo dem dikk duñu wala ñu jekkee-jekk gisatuñ leen ñu naan wàllu nawtal seex barki de moo ñaay am na ku ma ci woo koo xam ne nee na ma am naa kayit waaw waaye heure bu ma daggee bee damay fomm cey pour ñibbisi rek. te ba ma ko xoolee ay mbir la moom dañ ko faa dëj moom def nañ ko loo xam ne bu ñibbisi. te xam nga li ko waral. waaw mooy bàyyi na fi alal miraas moo xam ne. Mhm. moom bu ñëwee ci ñi am baat lay bokk. ci waaye ñi ko seqal fii. waaw bëgguñu mu ñëw ndax buñ ñëwee tey luñ ci jaay da ci teg loxo te arrangé wu leen. <laughs> heure bu daggee bee day toog ba bee ba primé. barke laa ilaha illa waaye bi ma ko consulté ba wax ay saraxam. waaw ñëw na ci màggal gi. allah akbar tarkalla am na ci ñoo xam ne dañ leen di naawtal hmm. spécial ñu génn réew mi dem dootuñ ñëw wala ñu dëj la fa walaay ndeysaan dootoo fi teg sa bët bari na ñu da nekk ci kujje wala xeexandi nga dem ñëw ñu ñu naawtal la nga génn réew mi dootuñ la gis hmm. ñu nit ñi jàpp ne daa tukki dem ba mu demee ñëw ko day font sagoom téewu ko fa ak nen téewu fa da demit heure boo xëy na dama man téemaa ji ba yàgg a ah, naa toog rek noonu nga def ba doo far ñibbi waaw ba bu ñëw sab néew lay indi la ñuy indi wadiyanci bi laa wala sax ñu ne néew bi nañ ko def fii lu wér loolu mooy li koy waral mhm. moo tax doomu aadama bu ne waaw ak ku a séq ak ku mhm. war naa bàyyi xel ci boppam lu wér ci wàllu kaaraange waaye korte ak naawtal wala déj nit waaw ñun comme ci mën a doon lépp loo xamante ni consulté nañ ko ba gis ko feebar bu mën doon mm-hmm. wala jàngoro ju mën a doon ñun am nañ ci loo xam ne seex bu ñu ko liggéey jox la moo xam ñu kort la moo mm-hmm. ko jox la ko boo ko laalee formanté doomu aadama man dama ciy liggéey loo xam ne lii cangat lay doon lii cuuraay lépp lu mas a fekk ci sa jëmm ba ngay ba juddoo ba fii nga taxaw nii lu ci bokk da koy formanté ci kàttanu yàlla moo tax ñun luñ luñ la wax rek. Hmm. am na fuñ ko teg. te ko ñoom ak dañ laa déy nag. te ñun ci xam-xam la ñuy dox nag. dafa leer na leer xam-xam bu wér. waaw waaw buñ ci consulté jaar fa ñu war a jaar buñ paree alhamdulilah rek nga ciy teg. Hmm. waaye nag ci kàttanu yàlla. waaw yàlla moo nuy baaxee. waaye ñu di ñaan mu denu may. ñu jaar ci ay waxam nag ak i jëfam. lu wér ci kàttanu yàlla. incha allah yi metti mu di tawat yi yi da nga gis ñoo xam ne nañ pour ñu tëdd guddi sax problème lay doon. am na ci ñoo xam ne dañ leen di sëf nit liggéey sëf leen yaa ngi dégg mhm. am na ci ñoo xam ne bopp bi metti ngelaw man na laa dugg mhm, mhm. jigéen ji de liñ koy jàmpa takk wala ngelawul jinne moo gën a doy waar ah, day ne sa yaram di wër waaw nga tëdd fu fi méttee ëllëg fi métti nga ne yaram di dis mel ni ku ci wala ngay toog di absenté wala sax bu timis di jot sa bopp di métti tàkkusaan jëm timis doo am jàmm yooyu yëpp xeeti sayaat yi dañ koy def seex ndaw ñi luñ mën ci aaru nañ ko def te xam waxtu ñuy jóg waxtu timis ku mu fekk fi barab war ngaa toog ba timis di maase njolloor maa ngi mm-hmm. koy baaxe doomu aadama yi nit waru koo dox dafa am waxtu yoo xam ne mm-hmm. ay njolloor mm-hmm. moomu ko jinne yi ak rab yi ak sayaatin yi dañ ci am wàll moo tax foo nekk ba timis fekk la fa toogal ba timis di maase maa ngi koy dénk bépp yaay ak bépp waajur woo xam ne yor nga njaboot yor yorit diggante deux heures ba trois heures ku ko hmm. man bul génn toogal ba trois heures yi tex ndax bari na ñuy am ay gàllankoor waxtu yooyu la di dal hmm. muy mag di gone nag hmm. ay xeeti sayaatin yi nga xam ne ñi ngi ci biir doomu aadama yi te kenn mënu leen cee seppi moo tax yooyu jara moytu ay am na ñoo di def wala ñu jaaree fa yàqu mel ni dañ leen a liggéey seen yaram di diis fu ñu toll lépp mhm. luñ duggoon mu yàqu ñu dem duñ gis dara tànk mhm. yi néew foo ñu dem duñ gis dara dem naa ba sonn faju naa lii lépp gàllankoor yooyu da koy waral moo tax doomu aadama fi ñu toll ñu tembe ñu toll kalkin ah. daa baax mhm. fexe bay muslu tey moytu fakaru daa gën faju xam heure yi nga xam ne baaxuta dox nga di ko ah. moytu tey moytu luy joxe ay jafe-jafe ci àdduna ndaw daal moytu fexe ba sa loxo ndajoor bi sax bu mu wóolu sa bu càmmoñ bi ah, sóorlu ba rawatina nag foo lekk fa fu ñu ne am na bët yoo xam ne lu ñu gis mu yàqu waaw am na làmmiñ yoo xam ne lu ñu tudd mu yàqu lu wër nga na ñuy gaare tamit cat moo leen di gaare waaw nga ñëw ñu naan diw diw yoo xam ne leen tudd dong lañ bëgg fu ñu dem fiis fa te amuñu gàllaaj moo waral yi ngay dégg diw diw nga xëy dégg ñu ne xasis daa feebar dañ koy katal wala nga dégg ñu ne kii ab tiktoker la nangam sangam mu ne fii summi ko génn am na loo xam ne bu ñu ah xale bi nangam nga dem gaare xale bi yii xale bi nangam nga droite moo tax image lu ko doomu aadama mooy tuddooyut wala boo boo ciy toog rek na am nga laaj mm-hmm. ndax ñëpp lay gis ñëpp lay tudd te am na bëri yoo xam ne lu ñu tudd mu yàqu am na ba yoo ne lu ñu tudd mu yàqu mm. am na bëri yoo xam ne lu ñu xool mu yàqu moo tax euh, cat yàlla nu ci yàlla musal waaye ku mu dal rek ah. boo ñëwee ñi ni seppeek dig lañ koy seppee mm-hmm. moo tax seex ah. gaañi ñi ngi ci biir gaa yi lu wér waaye situation yi li koy décanté waaw ñaan lu rek ñaan yàlla rek waaye du ay tappale de situation moom coole mën naa bari nag. Hmm. waaye coole. Hmm. gaa ci pind bi. te amuñ baag la ah. ñoo waral coole. la ko wax waaye bërigo bu ne dégg du yëngu. wallaay ndeysaan xam-xam fu mu nekk nit ñu dof ñu xam nañu ko waaw ngay wax loo xam ne mhm. da jël xelu nit ñi day gën xam-xam mhm. la ñuy wax lu wér te bu si jëflante jotee rek nga xam ne nun li ñuy def lambatuwunu ko ndax seex man benn affaire naa la ko leeral sama mbir nit laa koo xam ne neexuma deret lu may wax lu ma xam la lu may duggit lu ma man la waaye damay ñaan yàlla ñaan yàlla sottal ko lu wér nga wax lu ñu war a mën a jëflante waaw fa ma ko war a teg dinaa ko fa teg mhm. te saaba nag mu may suturaal nag waaye daal jafe-jafe bu waaye mën a am mhm. boo jox ak borom seet gu leer gi mu teg la ci yoon lijjanti ko ci kàttan tarkalla a a sakkan ndax it bokk na ci liy neexal kër acca ñëwal loolu ñaare benn ñi rabaleen ko def ñii ci lekk yi rek lekk yi ñu topp nii bari na ci yoo xam ne ñi <laughs> koy defar sax ñi koy defar sax duñ ko lekk wala ndeysaan lekk yi baaxatul lu wér nga amatul vitamine mhm. mag ñi lañ daan man da ngay dem ku dem ba am téeméeri at di man li gone di man lu wër laax lañ daan lekk ak cere waaye léegi jimboo jeeg lu nañu def ko bineegar beeg mu tàdd beeg lu mu gën a saf ngay siicu waaw sëy moom dara waaw moo tax daal gone gu la gën a gën a moytu yooyu moo la gën a wér am na ci kër yoo xam ne jimboo duñ ko togg te jimboo tap sax mën nga ko cee def waaw comme nag yow nit eh, say siddit lay rey ba mu dee nga moo tax yenn lekk yi nañu koy moytu mm. bokk na ci li def néew kattan mm. wala rab di ko def. waaw di foyee sa awra. Mm-hmm. mballu ak sidit yu dellu. waaw waaye lépp ñu mën a doon xam nga ay xeet la yu bokkut. wala da ngay consulter rek ba xam doon. lu wér bu dee wàllu rab la moom nga xam ne moom kër gi jàmm rek ngay dégg. maa la ko ngi nii tege ci saal bi. moom yooyu yëpp bagage yaa ngi fi de dañ ko gëstu mooñ teg wala <laughs> ko wax de buñ la consulté sa aajo wax ñu consulté la sab sarax rek bu dee kër gu yëngu moom man ngaa yor ñeenti jeeg de foofa naan alhamdulilah ngay dégg. Ah, ci kàttanu yàlla ah mel ni gi passé def nga ci ay xar baax de wàllum sëy. waaw wàll <laughs> gars yi ci kii <laughs> bëggoon kii am na ñu mujj toggay de xanaa. waaw wàllum sëy moom seex li ma ga. maa la ko wax de ña yàlla dogal ñu fekk ma Tuubaa. waaw tawfeex rek. ñu ma ci yëgale mariage si mariage. macha allah maanaam xam nga seex. góor ñi dee leen ciy fàggul ku ñeme ko ne dañ laa dee lu wér fii laa toog daat ne ci màggalug sëñ Tuubaa gi dama ciy def gratuit am jëkkër maa ngi giñ ci sëñ ñoom ñeenti téeméer yi voilà am dégg nañu ana yi barke alxuraan am na ñoo xam ne dañ maa booleeg seen xarit ñoo xam man leen promo ba moom jeex na borom jumaa ji nag moo a taxoon def waaye rus na ma ci fii Touba kenn du fi indi yaakaar muy tas te man lépp dama ko doxaloon ci borom jumaa ji ku ma fa fekk ci li nga xam ne xam naa ko maa ngi mm. dagaan suñu borom di ko mm. ñaan sëñ Touba ci barke borom màggal gi bu ñi taxaw ñi jëkkër ñi bëgg borom kër te mënuñu ko am fu ñu mu dàq bu ñëwee ma réglé situation bi Cheikh ku ne salaamaaleykum ñëw dem. Ah. wool sëñ mun njaay. tarkalla mu réglé situation bi ci kàttanu yàlla. jërëjëf kon sëñ Modou yaakaar naa màggal gi am na ci ñoo xam ne gis nañ ci seen bopp nga jot a ñoom ñu màggal si waaye xanaa ñi nga jotut a waaye képp koo ñaan ci wàllum tukki ak wàllum papier dina ci gis na ci boppam bisimilah. seex màggal gi nu génn. Mhm. ay móori móori li ma ci am. Mhm. kenn xamoon ni mu toll. walaay ñoo xam ne bañ demee. Mhm. ñoom jàppoon nañ ne dootuñ delsi wala bu ñuy delsi bu ñëwee dañuy toog. ci wàllum papier. waaw ah. te nag fii rek la ñu toppee ci site bi. moo tax lu waaye di wax. Mm. na doon loo xam. waaw lu waaye di wax. Mm. lu waaye di woote woon na mm. fekk loola ne fa. fii la ñu seetaane ci 221 people. jël fi sunu numéro yooyu ñu jëflante.

bu àndut ak dem ba mu leer na la yaa ngi ndamu rek day des ndax li ngay def da nga ci da nga ciy am fierté ma am na ci yoo ne boo ma koy ñaanloo damay mhm. sawar ñu jëflante ci mhm. ndax yoon ma ca jaar laa xam te rek les situation ci wàllu papier mhm. moo xam séjour wala contrat wala signature waaw li ma ci yor man maa ko xam seex tarkalla te jëfandoowuma ko ku yàlla bind laa ko papier maa ko yor ci sama loxo yàgg naa ko yàgg ko waxti résultat yi ma ciy am moo ma may man cee ndamu man ndax dama cee xam lu bari xam sarax yay décanté situation ci wàllu papier mhm. ñi ma ciy jëflanteel di la ndox saraxu papier bi xam nañ ko tarkalla du ma ci lijjanti lu esek incha allah mu ngi noonu jërëjëf dañuy jeexal ci actualité mu di xew-xew jamono niñ koy defee saa su nekk waaye comme ni nga koy ñaanale ñëpp ñi nga xam ne dañoo tawat ñu nit noonu leen koy ñaanale di ñaanal ku mel ni yaado suñu borom fëgg boppam ba mu doxewaat lii di ay activité am di koy ñaanal kii di yoroon numéro 2 nga xam ne dafa tawaat ba mu doxewaat lii di ay yitteem dinaa nit ñi tàgg tam nit ñi ñu tàgge saa su nekk nañ ko bàyyi ndax ku ci mel ni Pape Cheikh Diallo temps yële passé nit ñi tàgge woon na ko fi bu kenn tàggeeti koo xam ne deewut jërëjëf nga ne lan nga gis ci réew mi waaw seex loolu xam nga li koy waral mhm. nit moom ku la tàgge ko ne yéene a jàmm ah. waaw waaye Pape mhm. moom yàlla daa dogal ci ñi nga naan waaw eh, ku boot bu ki xaj baaw la rek ci la bokk mm, mm. waaye nag fii may wax ak yow nii mm-hmm. tàggee mm-hmm. lu ko gën a wóor di amut mm-hmm. man ngaa tàggee yow ba dugal ba pare yow ñu tàgge la lu wér nga wax nan ci bàyyi xel bu baax a baax nit ki waaw suñu borom yéene rek lay fay li nga yéene sa bopp loo xam ne tey bu ñu la ko defoon tey du la neex wala ko teg sa mbokkum jullit waaw waaye nag mboolem ñi nga xam ne ñu ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi tawat mhm. ay ñoom yaa doog yooyu yëpp nga dégg yàlla na yàlla fëgg seen bopp mhm. waaye mboolem ko xam ne yaa ngi yëngu ci aar waaw na gën a jóg ci sa bopp bu baax a baax mhm. ah, ku ci mel ni eh, Waly Seck ñoo ngi koy ñaanal bu baax a baax waaye ndaw la waaye na gën a góorgóorlu ci boppam te buy génnati lu demee ni dëkk ba dëkk waaw nañ ko waaj bu baax ah. waaw ndax moom waaj comme doomu aadama lépp lu la yàlla jiital mm-hmm. dana ci am ñu la ci fakastal moo xam nga xam moo xam nga ñàkk xam am na ci ñooñ nag bu ñu xamul fu ñu la jaar ci staff bi la jege mën nañ fay jaar te doomu aadama dafa lëndëm mm-hmm. waaye a moom di déplacé wu dëkk ak dëkk waaw encadrement bi sécurité bi ci moom ci wàllu saaxir ak baatin na mat sëkk li may wax nag man lu ma xam la te man dama ko te man damaa koo yéen a jàmm mm-hmm. ndax li tax mu neex ma man kuy jël sa tranga di dimbali néew doole ji. bu ma sañoon foo toll sa teraanga day yokk. Mhm. waaw ndax man social laa xam. lu dama damaa xam dimbali. ku mhm. néew doole koo tane nga dimbali ko man du ma lekk ba ku néew doole. moo tax bu ma gisee ku koy def dama lay bëgg. waaye bu war a tee sol aw dàll moom di génn dem dëkk ak dëkk. Mhm. ci wàllu sécurité nañ ko saytu waaye ci wàllu baatin mhm. bu mu ci waajal boppam bu baax a baax mhm. ndax bari ñoo bari na ñoo xam ne tey li ñuy xaar ci moom mhm. buñ ko amoon dañañ ree waaye nag yàlla bawu ko waaye na gën a góorgóorlu ndax am na ay ñaani waajuram te loolu bokk na ci li am solo waaye nag na gën a góorgóorlu ci boppam rek ndax adduna paakalum ñaw ñaw des na ko dàggi li may wax nag lu ma xam la jërëjëf te dama ko yéene rek moo tax ma wax ko lii jërëjëf incha allah ñu jeexale ci mu mel ni convocation na te doo moytu tëj dina bëri lan ngay wax ci politique bi dossier yi ni mu baree woon nee la woote bi dina bari tëj yi dana bari waxoon ñoo xam ne seeni dossier mën naa ñëw waaye ci mbàmmeel la mujj lu la dossier yi yëpp danañ ko teg ci taabal bi mën nañoo seral ni la gars yi ci lañ concentré woon mooy fexe ba xam yoon wi war a jaar waaw fi woon fexe ba xam yoon wi ñu a jaar waaye bu demee ba xam ba commencé doxal mm-hmm. bu demee ba commencé doxal rek waaw yu bëri danañ tege ci taabal yi mm-hmm. te dossier yu bëri danañ rëq seen digg ndax ak jubati fexe ba jub du koo liñ naan sëriñ boo lambaaje mbuuti bi rek mu andi teex waaye dossier yoo lambaaje fi ne yi ci dul andi teex yu néew la te ku ci say teex nekk ci kaso bi nga jëm ah, fii ñii fi nekk duñ baale dara ku lekk ku ne da ngaa war a goxee ah. nit ñi nekk di xiif di mar nga jëli milliards danga ko ci ar ba réew mi ku ko sànk da nga ko war a génne man dama cee ànd ak ñoom te ku gaxoon ku ne da nga gexi loolu moom maa ngi leen ci sant buñ gestu li ñu yooyu yëpp dana tege ci taabal ji incha allah te ñoom jàmm rek la ñu am nag de mu ko coole mën naa bari ñu Jomaay Sonko ku leen yéen wut jàmm yow yaa ne ci erreur waaye ñoom ci lañ nekk xam nañ ko seen ginnaaw duñu moom ndaw laa ci at waaye dëkk bii moom mhm. kilifa laa fi te kilifa yi fi xam nañ ne kilifa laa fi du ma waxoon it nag kuy jéem si ñoom yow nga jéem loo xam mu ko la bu may jàlle man man ngay jéem dara ci nit waaw waaye man naa mel ni baloteng si nag kon nag ay ay làkk la nañ ko bàyyi xel jërëjëf mel ni combat suñ koy waaj la euh, di gën a metti rawatina ci mystique préparation yeeg face to face yi Siteu Modou a jege rek bés bu ñu gën a dem rek ci weer a jege si ci ay combat boobu Siteu ko def ci Modou Lo daan lu mën a am daan ko moo ko gënal <laughs> ndax man xam naa ci dara lu mën a am bu doon miraas li am lépp doon roi des moo ko gënal ndax bu ko doonee lu mu bëgg mën na ko am mm. roi des arènes ay caaxaan ndax xam nga li tax. waaw mooy yaay buurum bëri ñëpp moom nañu reefee dem toog ca. waaw boo ci bëggee bu ne la yaay bëreeg moom. Mm-hmm. lu mu ko lu mu la jaral ngir nga jël couronne bi. waaw da nga koy def. Mm-hmm, mm-hmm. waaye yow mi ko yorit lu mu jaral kiy jël si. dana la ko jaral ba. du fa jóg du fa jógee wër. <laughs> waaye incha allah rek <laughs> naa la wax waaye li ma ci xam. waaw. tegtal bi nga xam ne moo joxe ndam daal ci làmb. waaw ak bi nga xam ne boo naree daanu tey na ngay fexe ba samp niil. mu ngi xir la ya ngay boot waaw ku ko yittewoo sëñ mun njaay ngay seet si mu leeral la lu bari combat bi li ma ci xam doonagut sax lu may ma a wax nii na gën a jege rek résultat bi gën a leer ci sëñ mun njaay ci 221 incha allah jërëjëf di sant ñëpp di gërëm ñëpp jërë ngeen jëf